Seck dafa nekkoon Maam Mor Anta Sali biñ nekkee mu daa togg ay ndab di ko jox ne ko dama bëgg jaxasoo yow sëriñ waar mooy waajuru sëñ Modou Badiane sëñ Modou bajaan di waajur sëñ Mouhamadou Seck sëñ Mouhamadou Seck di waajur sëriñ sekk mii nga xam ne bu ndikkee teen ba maam yi doon naa ne ko da ko sekkle ñu bëgg wax ci sëñ Daam Abdourahmane Lo nag wax ci dana jafe lool ndax am na ñu jëpp xam-xam ci suñu gannaaw ki gën a dégg nag ndigal yooyu yàlla dégg yi ndigal loolu sëñ bi dégg yi ndigal loolu son yonneen bu baax bile kookaa di sëñ daam abdu nag rahmaan mu ndaam ngir jëf la nag lu rëy lu kenn du jëf ko nag ci ba terey sun buur bile sëñ daam ndigal yu yàlla yi yépp la jëf ngir julli yi joox na ko joox naafila yi mën doo bi sax da koy julli ma wax la ni fonki ndigal yooyu sëñ bi sëñ daam daa dëggal nangu dogal nangu ndigal sëñ daam de daa boole yile ahmadu daam moo woolu ndaam abdu ni ko na dem fa ndaam sot xalimaam te soosi daam te toog fa ndaam di jàngale seex mustafaa ibnul xadim seex fallu mbàkke ak ay rakkam ak mag ña ak seex yi itam sëñ daam de jàngal na ñile jàngal na bàyyi ak doom ja ak sëtam ba lii daal jafe nag sëñ daam de moom jëfe na nag jëf jii ma wax nag ñi le seex anta gaawaan rakki daam sëñ moodu mun mii di doom sëñ moodu roqaya sëtam sëñ daam de jàngal na ñi le sëriñ tubaa dana ngoon toogal ndaam di jàngale bi sëñ tubaa demee ci géej gi ba ñëw fa mu toogoon jógu fa ndax nangu ndigal bari na ñoo xam ne ndigal nii mu ko nangoo kenn du ko nangoo ndax moom dafa toog ndaam bi sëñ bi dikkee ñuy dem Daaru Salaam taxul seeti ko fa mu ko diggoon mu duju fa dara du xew ba mu jóge fa ba sëñ ba delsee xandu fa sëñ bee ni sëñ daam luy lile sëñ daam mu ndax danga maa mu ne ko man yaa ma digal yaa ni ma woon mbàkke demal jekki fa ndaam day dem fële te déggumaat leneen digal luy dindi lii nga ma digal te man de duma mooy ndigal loo digle ak yu buur bi le sëñ bi gërëm ko daal ne ko loo bëgg sëñ daam wax ma ko danaa ko def bul ñiiblu ko buur yàlla moo lay jàppale sëñ daam ni ko man nattu yi waroon na dal taalibe yi gàll ko kon saa wagg yii ma gàdd ko man daam mi sëñ bi ni koy sartala am ndax danga ko àttan lépp daam mu ne ko wax ma rek ma xam ba xam ne yaay téeñ téeñ bi de bi ne ko bis bu ne kaamil ngay tari muy ñaari rakkaa dem teyit lu buur yàllay tere da nga ko ne ñukk nag na le sëñ daam ni sëñ bi roof ma kon muñ jile suuf am ak kàttan gu tol ni goog malaaka kon ma man koy sañ nga yow li le sëñ daam ni sëñ bi roof na ko ndax sëñ basiiru nee na ko sëñ daam mu ndox bii def nga ko la nga waxoon sëriñ bi de sëñ basiiru daam fanweeri mu dem fa ne sëñ daam ndax la sëñ Tuubaa waxoon ngay julli ci guddi gu jot ñaar rakkaay yaa ngi def ñaar rakkaaya mu ne ko roof na ma ndax bii def naa ko sëñ daam bi mu daa julli Mariama la daa yem ay neen daa taasar ba mulki moom la koy wax noonu moo tax sëñ bi sëñ daam ni sëñ bi roof na ma ndax sëñ Basiru nee na ko sëñ daam mu ndox bii def nga ko la nga waxoon sëriñ bi de mu ne ko yow sa baay xamal nit ñi dinañ ku gën xamul ngir moom mu ñu suuf la ma sol malaaka yit kàttan nga la ngir tar naa ba mulki bii soog a rukkoo Mariama nag laa daan rukkoo kàttan ga nag laa topp taatar sarale lii sëriñ Seck def nag murid bu ne war na ko def du moom dong ndax danoo gàddu natt yu bari ci sëriñ Tuubaa murid bu war naa njukkal sëñ daam te war na koo fayal bor ngir murid bu ne ameel bor nag bu rëy sëñ daam mi de tey sëti sëñ waar fay nañu seen bor ba ngir tudde nañu seen bis bi sëñ daam fay nañu naar bi xorom si tey jile sëñ waar di ab jàngalekat sëñ mët ba jaan jàngalekat sëñ Mahamadou Seck mi dundam gi jeex ci jàngale sëñ Seck sëkkul teen ba tey ngir béyte alxuraan ja tey leer gaa nga jolli duudu fay te lépp ak sëriñ mi le tey alxuraan ak alxuraan ñoo diile rek seeni mbalaan ngir seen sëñ Moodu Bajaan sekkay njukkal sëñ daam yi le buur yàlla bég na buur yàlla bég na tey ci yéen yeneen ba it bég na ci yéen seex bamba it bég na ci yéen ak soppe alxuraan ji yàlla na lépp luñ fi ñaan buur yàlla ful ko junni yoon bi jaahi ahmadul amin ak barke Seex Bamba mi le wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf ñu tàccu sëñ lamin jóo bu baax ci taalif bu am solo boobu mu indi jëmale ko ci ki nga xam ne mooy parrain wu bis bi di Serigne Dame Abdourahmane Lo waaye jëmale ko ci alxuraanul karim aku mbindam sëñ Mbàkke bala ñoo ñëw ci li ci topp te mooy seetaan vidéo protection bi nga xamante ne def nañ ko ci Serigne Dame Abdourahmane Lo bu daaneelee ñu jox kii wax ci kàddu Euh, famille bi nga xamante ne teew nañ fi di ñi nga xam ne ñoo toog nii ci suñu ndeyjoor te teg kaala yu bula yi ci seen i mbagg sëñ Mbàkke ñu jaajëfal bu baax télévision yi nga xam ne jamono jii ñi ngi def événement bi en direct euh, télé bi nga xam ne mooy DTV Lamp Fall TV Walfajiri Al Mouridiya Touba TV ak ci site internet yi Leeral TV mi ngi koy def en direct ak Tawfekh Production Ali Imran TV euh, ak yeneen liste yi nga xam ne accès gu ci ñun jaajëfal bu baax mboolem télévision yooyu nga xamante ne jox nañ yitte jox jotaayu tey bii ba ñu nekkut seen i kër dara ump leen ci ñuy ànd ak ñun ci programme bu am solo bi bisimilah sëñ Mbacke. waaw macha allah sëñ Mbacke noonu nga wax noonu la demee ñu ngi sant bu baax Serigne lamin jóob ci euh, abyaat yu am solo yooyu mu jagleel Serigne daam Abdourahmane Lo di ki nga xam ne ñu koy fàttali mbooloo mi moom mooy kilifa moom leen dara jaalee tey euh, yaatal mbindu alxuraan si cérémonie bi. mu nekkoon jëmm joo xam ne ku ne xam na ne lim daa ñaan yàlla may ko mu am muñuk suuf nga xam ne lu ko dal mu mën koo muñ waaye nag tabee ni asamaan xam ko mel noonu moom loo wax si moom dañoo ne xadis wala xarij lu la neex si lu baax ah, mën nga ko ko wax ndax ndax waajal nañ ko te dékku na yan bi macha allah.